amoon na fi bés diwaanu Afrique ci village bu ñuy wax Sacré di village bu naat village bu rafet amoon ñaari xarit yu fa dëkkoon kii di wuyoo si turu Gilbert kii di wuyoo si turu Jibi nekkoon ñaari xarit yu fowandoo màggandoo jàngandoo waaye seen jikko yi wuute lool kii gisul lu dul boppam ñu nekk si dëkk bi di lëmbe di changé ay jigéen mel ni kuy changé yére village boobu ñu nekkoon nag di Sacré am ndaw su fa gane si nekk ci dëkk bi yàlla nattu ko mu bëgg loolu Gerbert te Gerbert xool lu dul ne ndaw si da koo bëgg waaye moom boppam rek lay xool intérêt kese lay xool ndaw si wan ko cofeelam ñëw wax ko ne daf koo sob te yàlla tax Gilbert ànd ceex moom gannaaw bi mu waxtaanee njibi ne ko ndaw si de wax na ma kii wam waaye man de nopp ma ko de waaye dinaa dugg ci moom ndax gis naa ne mu ngi liggéey te mu ngi may toppatoo te am na alal waaw loolu daal xam naa ne lu ma soxla dina ma ko mën a defal. dugg si soxna si. soxna si saay su yeewoo rek. ngi ñëw ci dëkkuwaayu Gilbert. di ko defar di ko fóotale ay yaram di ko toggal ci xaalisu boppam. te du ci am bànneex bi muy wër ndax li muy seetlu mooy. bu ko toggalee sax ba mu lekk. kële pour mu wax ko jërëjëf sax du ko ci am. lu dul bu yëkkatee xaalis jox muy doog a gis kanamam di gis sax muy reetaan mu jàpp ne kii kat bëgg na ko lool moom gisul ne kii alalam rekk la ko toppee am bés Gilbert di waxtaan ak Jibi di ko wax li mu nara def soxna soosu li yéen yàlla too mooy bi ñuy waxtaan fekk soxna si yeewoon na ba ñëw ci kër gi ba doon defar te ci néeg bi ñu dendeel doon noppalu pour bañ leen a yee ndax ñoom ñu ngi nekkoon ci beneen néeg bi di nelaw ndakate bi ñu jógee di waxtaan moom mu ngi leen di dégg mu naan dañuy teg ay pexe nuñ ko naxee ba am si moom xaalis bu bari jibi di ko xamal ne ko mën nga koo fexe mu leb wala daal na fexe daal ba jox la xaalis comme moom am na ko te mën na ko ah Gilbert comme xelam gàtt na te loolu rek la gis mu ne ndaw si dafa am soxla te bu ko mënul faj soxlaam boobu moom daal na dem bu dem ah soxna si xam loolu ne teg bi ko Gilbert waxee loolu mu xam ne ñii dañ koo bëgg nax mu ne waa ba tey baax na dinaa nangu ñu ndax ma mu yëkkati li nga xamante ne moom la ko Gilbert laaj fexe ba toppatoo ko yëkkati jox ko bés yi di dem Gilbert di gën a yokk di ko laaj rek soxna si bind lépp xam ba xam ne nii la xaalis bi takkoo mu jël xaalis boobu wala lu tey noonu ñaar ba ñetti yoon ne ko mankat ne ko dama am lu ma bëggoon ndax sama waajur bu góor ku am alal la lool mu ngi dëkk ba te daf ma ne woon alal ji sama wàlla lim ma say jox pour mu jox ma ko foog ma am borom kër bu ma amee borom kër dina ma jox alal jooju te alal ji bari na bariwaay boo xamante ne bu ma ko joxee waxuma la ñun ñaar waaye dëkk bi ñu nekk yépp mën naa leen ci dundal ñoom ñépp te alal ju du jeex ah comme Gilbert alal la ko ñor mu ne ko man prena naa pour takk comme ça alal jooju pare naa pour takk la bu ko defee alal jooju ñu mën koo jël comme sa alal la man doyuma dara sa alal ñu mën koo jël ñu am fu ñu nekk fu ñu moomal suñu bopp dund dund lu neex ndaw si ne ko mën na nekk waaye nag foog nga lijjanti alal ju takku ndax man fi ma nekk di fa liggéeyee dama faa jël xaalis te mënuma ko àbbaat lu tey pour bi am fogg ñu def xew-xew bu rëy xew xew aada ak cosaan pour dëkk bi yëpp te xew-xew boobu dafa laaj alal ju bare bari te sama waajur bi dene ma alal jooju sa borom kër bi lay takk moom moo koy def bu ko defee ba pare nag ba mu dëkk bi yëpp seede ne sëy bi am na ma doog a yëkkati alal ji nga xamante ne moom laa la jagleel jox la ko soxna si bi ko waxee loolu ah moom mu ne amul mu ne ko ah foog nga def ay pexe mu ne ko baax na ci la dawee gisaat xaritam bi ci bi wax ko li nga xamante ne moom la ko soxna si wax te moom bëggul jël alal wala àbb alal joo xamante ne jotagu ci bëggul def dara moom lu dul toog xaar rek alal jooju ñëw jibi ne ko du demee noonu man fi may liggéeye mën naa fa àbb xaalis yow fi ngay liggéeyee nga àbb fa xaalis ñu fexe boole loolu ñu am ba lim la laaj takku na bari na waaye nag nañ fexe jokk ndax alal ji bu ñëwee liñ ciy am mooy ëpp liñ ci nar a ñàkk ñu def seeni pexe def ay jéego ba jël alal ji jox ko teg ko si loxo soxna si soxna si ne ko ah kon alal ji mat na dangay bàyyi ma dem dëkk ba bu ma demee waxtaan ak samay waajur ñu jàppal ma bés comme ça bu ma ñëwaatee ñu dem ñu takk sëy bi soxna si jël alal ji dem tukki bi mu jëlee alal ji dem ah ji toog ay fan déggul Gilbert wax ko ci dara te li liñ ko mayoon ci ay fan pour mu commencé fay bor bi daanaka jege si na mu ñëwaat di laaj Gilbert waaw ana ndaw si moom it fekk ko Gilbert nekk ci njaaxare ndax fan yi yëpp day jéem a woo soxna si waaye mënu ko jot mu jéem ba sonn mënu ko jot soxna si bi mu demee ba àgg fi mu doon dem ci réewum taax bind ko bataaxal di ko wax li tax li ko waral du lenn li nga xamante ne moom loolu la ko bëggoon def Umu depp lepp léegi nak duma ko agali fi la koy yemalé wayé nak yeen lay bayyi yeen ñi may déglu ngeen wax ma li fal la wara jéxé ñi ñu ngi leen di top ngir alal ji nga xamante ab nañ ko té war ko dello soxna si mo wor Gilbert wala Gilbert ak Jibi ñom ñoo wor soxna si kan la ci ñom ñaar kan la ci ñaar ñi wala soxna si la liñ ci mëna jangaté rek moy boy dugg ci nit naam sax intérêt mënul ñàkk waaye na ko dëggulal te intérêt bi na doon intérêt bu sincère bu noble waaye bu mu doon intérêt bu négatif ndax yéene néeg la boroom a cay fanaan te ko ñu fay sa bor nga mer nee nañ li nga leblee baaxul abonné leen laaj leen partage leen jërë ngeen jëf gëm na na Mati comme le nez à le